tu Lamine Diack may ñaanal yàlla bàjjan Jàbba Gay mm. nekkoon soxnaam uh-huh. léegi ajaratu Jàbba Gay doon kenn ci sama tante sama magu yaay ju mu bokkal ndey bay ajaratu Rama Mbay ca Grand Dakar fiq mm. ak moom lu baree bari waaye lay Abdoulaye Diaw Pape Massar Ndoye daf ma envoyé message ni ma Lamine Diack mm. mooy parrain ak fondateur u Njàmbur de Louga ndax nee ma réforme uh-huh. Lamine Diack dafa privilégié Louga. oui. naam amoon na ay xale yoo xam ne ci Louga. oui feu Mademba jóop ak feu Madoun jóop dañu nekkoon ay xale yu am jom. Mm. waaye nag dafa amoon xarit Baba Kunta nekkoon xaritam ci Louga. Mm-hmm. waaye léegi doyen Abdoulaye jaw dafa wax lu am solo. xam nga RFM dafa def reportage ma defoon ko à l'époque. Mm. ci El Hadj Babacar Kebe di Ndiouga. Mhm. wax leen ni leen immeuble Kebe. Mhm. nangami at ci tey mooy le toit de Dakar dara sutu ko. waaye témoin ñi fi nekkoon sànq di témoigner. Mhm. gàkku ba léegi moo yor 400 mètres. kenn fekk ko ci Baye Abdoulaye Diaw. 400 <laughs> mètres ba léegi gàkku moo ko yor. jërëjëf professeur li nga wax ak ko xóot ci Amadou Gàkku. waaw nii nga xame ni ah, ba 2015. waaw Lamine Diack envoyé na ko billet mu gane si ko wéetali ko waxtaan. ba 2015. Lamine envoyé na ko billet mu fekk si ko waxtaan. 1900 lan la woon Abdoulaye. at yi rek 2000. ba 2015 ñu ngi 2000. 2021 bi moo am raaya boobu ba ban at la woon. Amadou Gakou. waaw xoolal xoolal dafa dem dafa dem aux Jeux olympiques. waaw Gakou dafa dem aux Jeux olympiques. waaw Mexico. 1968. waay hmm. final ba. Hmm. mu dajeek ñetti américain. keroog la ci xelu xel yu nga xam ne ba léegi kenn mënu ko wekki gàkku waaw parce que américains yi ñoo yéeg podium mu ñëw en quatrième position derrière mm. les trois américains mm. gis nga performance ba mu fa def en 1968 quarante cinq secondes un centième ba léegi xale yi mënuñ ko wekki en 2000 en 2021 c'est-à-dire il est champion du Sénégal de 1968 à 2021 ba léegi moo mën ci Sénégal extraordinaire de 1968 à 2021 te nag te nag sàngoo ngor gis fi mu nekk mhm. fi mu nekk këram mhm. bu tawee kër néegam tooy ah yokku na ko partout ah. ah. woote na partout jàpp kaay leen jàppale ma ah. soxnaam gaañu na daaw gàkku il vit seul hmm. këram bu tawee fi mu tëdd day tooy euh. woote na partout ñu tax xam lu ko mu sàngoo ngorom hmm. Amadou Gakou mooy champion du Sénégal de 1968 à 2021 45 secondes un centime ci 400 mètres plan ay américain karaw. kooku nag garmi. kooku nag dafa am ku yat wi dal. waaw waaw. Ah, ministre des sports la yat wi dal. te te te am na ah, kersa. am na kersa Lamine Diack di yëg loolu. Hmm. moom Amadou Gakou. kooku ki yat wi dal Abdoulaye jaw hmm. ki yàlla teg ci bopp ministre des sports. moom la yat wi dal bu tawee mu nekk ci biir néegam day tooy kooku xam naa ne Abdoulaye Diaw. waaw xam naa ne mi ngi noo seetaan. Hmm. te te ku mën a jëf te ku bëgg réewam la. te ku bëgg doom nit koo xam ne kile ci sport boo nekk wala wala discipline boo nekk. Mm-hmm. kooku daal incha allahu taala dinañ ci def jéego loolu Makhtar baax ci boppam ministre des sports am na ci cër. Ah, man mii rakam incha allahu man la osé di wax ak man loolu. te pour te dire que Lamine Diack amul yaa ñàkk ñaan. kooku doyen. alhamdulilah kilifa yi dinañ ko dégg. Ah, professeur. Mm. Lamine Diack. Mm-hmm. ci yaatoom. Mm-hmm. gis nga gàkku mi muy toppatoo bay toog bu yàgg. envoyé que mu gane si ka pour wétali ka. pour waxtaan ak moom. xam nga bokkuñu équipe. déedéet. Lamine Diack a Gakou bokk ñu équipe Gakou US Gorée la bokk. Lamine Diack bokkoon foo ay France Sénégal ba jaraaf Gorée ngay existé ba tey. waay mu am nag lenn Lamine Diack amul adversaire wax nga ko tout à l'heure Pape Massar Ndoye daf la envoyé moo nii la Pape hmm. la moo yéegee. Hmm. gis nga ci réforme bi. dafa jaar Louga. Gakou ngi nii Gakou nii doyen. ngi nii ngi nii xel yaa ngi nii. gis nga xel yi. 1968 la ca Mexico. <laughs> les paroles s'envolent mais les les images restent. xel yaa ngi nii. maillot national la sol nii. 45 secondes un dixième. gis bokku ci. gis nga fii. Mm. ak ñetti américain nekk ci kanamam. ñetti américain kese nekk ci kanam ñuy yëg podium. 45 secondes un dixième. la ci def mm. moom Amadou Gakou. mi ngi nii champion du Sénégal de 1968 à nos jours c'est encore la lion de l'athlétisme sénégalais bu tawee néegam day day day tooy. fi mu tëdd day tooy moom Amadou Gakou ah, te rusta sax Lamine Diack di ko yëg ah, loolu incha allah waaw man mii rakkam man mii rakkam mu may diis damay seet Gakou fan laa ko mën a jàppale dëgg la fudul kooku yo jooytu jooytu métti tam ci wetu kilifa yi garmi kooku ministre des sports lañ garmi loolu yaakaar naa tàbbi na ci nopp yoo xam ni ñun ñëpp dinañ ci taxaw taxaw incha allah xam nga alaaji Ibou Sakho yàlla na yàlla yokku leeram mm. daf daan wax ni ñi taxaw ci fëy di laaj de leen leen jox baax na lool. Mm. waaye am na ñu nekk ci biir koñ bi. ci seen ngor mayu leen ñu tàllal loxo bu ñu doon deet duñ ko wax. dëgg la de kooku gor la. Mm. waaye eh, dafa def loo xam ci réew mi yaakaar naa ni loolu rek war naa tax ñu jàppale ko war naa tax. ñu loolu mooy faqiir moo gën a metti miskin. jërëjëf yow jërëjëf jaw parce que xam nga miskin bi. Mm. mi ngi taxaw ci mbedd bi. mën na tàllal loxoom di tàllal loxo. dana am paas buy ñibbi. faqiir mënu ko. faqiir day sañ sa sañ sa bu rafet. bëggan jekk Amadou Mbaye Garmi mi dafay sañ sa bëggan jekk Garmi soxla 1000 francs rus na ko laaj. te dafa sol sol boo xam ne yow ñeme woo ko may 5000. 5000 mm-hmm. rus na la laaj. rus na la laaj 1000 francs mm. te yow ñeme woo ko may 5000 ndax sañse bu rafet. bilay bilay fa fàq yi remetti. loolu nag euh, doyen pour dellusiwaat ci émission bi. Mm. Euh, wax nga sànq bat leen fiki waaw man ba suñ jonn tey danaa koy jàngale ci classe yow mm. lay cité. nga wax ma comme euh, combat bu mag bi nga xam ni. Carpentier. moo Carpentier. mooy champion du monde et d'Europe. waaw wax nga ma ni ma bi ko Blaise Diagne ne Mbarik. Blaise Diagne a gagné combat ba. mu gestoo loolu yaakaar naa am na lu mu def ci moom. Blaise boobu la ñuy wër. Blaise Diagne moo gagné combat ba. ah. parce que Blaise dafa accès di député. waaw ñu bëgg ko yóbbu ci loge bi. waaw ñu bëgg ko yóbbu ci loge bi. mu bañ ni du fa toog. Hmm. ci chaise yi ci booru ring bi lay toog. pour supporter ko. waaw ndeysaan. bi mu yegsee Mbarik Fall gëj na dégg. Hmm. waaw. gën na dégg ku ko wax wolof. <laughs> mu dégg wolof bi. Blaise dafa agsi ba ci booru ligne bi. ni ko eh Mbarick na xeexa ah? bi mu ko nee na nga xeex. la ilaha illallah gestu. waxu ko sax pat lañ sikki Mbarick na nga xeexaa ah? Mbarick Fall dafa gestu ba xaw daanu ndax dafa dégg ku ko wax ni ko na nga xeex maa ngi toog fii. loolu gis nga gis nga li ko manaat bi waxoon ba muy jógee ca cumikaayam. da koo teg fële daf ko teg fële. mandaar bi xàmmewul bat leen sikki booba temps fekk na Blaise kàddu ga mu ko wax moo ko roof ay doole loolu gar bi dañ ko daan def daf ko dafa dóor Carpentier mu daanu loolu te nag euh, kii xam nga lu ma lay yóbbante ci ci soxla nga ka hmm. ci Mbarick Fall waaw yaayam yaayam hmm. xam nga ni yaay la ci Abdou Diouf nijaay la ci Abdou Diouf. Mbarick Fall. Mbarick Fall yaayam du yaa ngee dégg Mbarick Fall yaam xam nga daa dégg. ak Iba Gay xam nga daa dégg xam nga daa dégg euh, ak ci Abdou Diouf. ndaxte Gay Massar. Yacine Gay Massar Tene Gay Massar. Yacine ak Iba Gay Massar. xam nga Iba Gay Massar yaayam ak yaayu Batlen Siki ñoo bokk ndey. extraordinaire. Mareetu Fay mooy yaayu Iba Gay wuli jaaxa di yaayu Batlin Siki ñoo bokk benn ndey si ba gay avant muy sangoo suuf 1975 dox na ba tàyyi lu lu desitu Mbaarik Fall ñibbee caaka Njaay ca Ndar ci Ablaye Matar la ñibbisi ministre des sports Ablaye Matar Diop mm. waaw moom laa wax ni gannaaw Batlin Siki gannaaw bat Siki Lamine Diack mooy sportif mooy sportif bu nga xamee ni tey jii yelloo na gis nga stade bi Macky Sall di def ca Diamniadio bu ko dippee Lamine Diack àddina bi yëpp ni ni ëskay. ah Garmi la la Abdoulaye Diaw euh, la mémoire du sport sénégalais. bu ko dippee Lamine Diack àddina bi yëpp ni ëskay. Batleen Sikke dañ koy dencal waa Ndar stade bu Batleen Sikke dañ koy dencal waa Ndar. mais mais. eh Abdoulaye. Euh, jam ñaajo. c'est un grand mm. conseiller. ku ci def Lamine Diack. waaw ñëpp d'accord. conseiller conseiller waaw xam nga conseil bu mag la. xam nga ku la ni. Mm. France da nga leen di jox seen cër. moo doon seen champion en 1957. Mm. yéen Afrique. moo doon seen président pendant trente ans. Mm. de 1973 à 2003. oui 73 mm. ba 2003 président confédération africaine de d' athlétisme pendant trente yéen monde bi c' président mondial tey jii mooy Infantino Blatter mi ko jiitu. Mm. mu def ci fukki at ak juróom ci lu nga xam ni àddina bee ko moom doomu nit ku ñuul nekk ci di doomu Sénégal. mais kii ñu ko dippee stade du ñaajo bi addina bi yëpp ni ñu xam ngeen fi ngeen jógee ah. loolu sax Abdoulaye dana am loo xam ne lii da koy faj laman. loolu day wane li xew neexul. xew neexul. bu weex a ko def waaye bu ñuul bu ñuul diñ na ko. jërëjëf Mbaye waaw te dëgg-dëgg Abdoulaye jaw li nga ne loolu kenn du ci teg baat su boobaa kenn du ci teg baat. te nag man mii man mii doomu ndar naa la wax gar bi xam nga lu may góngee ak professeur Lamane ah. mm-hmm. man mii di doomu ndar mm-hmm. naa la wax benn yóbbante bu nga xam ne ci biir ndar dañ ko dañ ko waxtaane Lamine Diack bi muy dem Ndar pour fusion ba li la Pape Massar Ndoye wax léegi dafa fekk waa Louga en deuxième division mu dajale leen ñuy njàmbur mu yéege leen boobu tey ñu ngi exactement loolu la wax léegi nii moo leen yéege moo leen yéege ci dafa leen fekk deuxième division mu dajale leen yéege leen def leen benn équipe njaagur yéege leen. exact loolu la wax léegi. xel dem xel yi dem na ci Mademba Diop. ñëw Ndar Mademba Diop effectivement ak Medoune Diop Loro. waaw Medoune Diop Loro moom la wax léegi nii waaw waaw ak ñoom Elimane Thiam. ak Elimane Thiam. <laughs> ak ñoom Elimane Thiam. Elimane waaw Mademba Diop ak ñoom Ponge. Louga ngoog cercle de la jeunesse de Louga. xam nga cercle de la jeunesse dañuy wax rek waxu culture. football la ñu man mën leneen cercle de la jeunesse de Louga. football la ñu gë championnat ndar la ñu bokkoon xam nga Louga xaw na bokk Saint-Louis ndax loolu. waxtaan wi dafa neex bi ñu ngi xaw dara waxtaan wi dafa. garmi waxtaan wi mais xam nga fu may tëjee. ci Lamine Diack c'est extraordinaire. damay tëj fenn ci Lamine Diack. Mm. xam nga Lamine Diack bi muy ñëw ndar. ca fusion ba. Mm-hmm. Gorek Gia dañu bañ ñu fusionné wuñu parce que am nañu lu war tax du ñu fusionné. Mm-hmm. Lamine Diack bàyyi leen ci parce que boo waxtaan lañ leen ni da ngay am équipe bu football. équipe bu athlétisme. Mm. équipe bu basket équipe bu au moins. nga Gorek Gorek Gorek Gia. Mm. dégg xam nga yaa ngi dégg ba léegi Gorek Gia. Mm. demuñu à la fusion. moom équipe bam dem fusion bi Lamine Diack ñëwee Ndar. parce que Lamine amul woon adversaire waa Ndar dañ ni comme lii moo ko indi Ndar Lamine xam nañu fi fi fi ñu ko féetee ñun. waa Ndar. Mm-hmm. xam nañu fi ñu ko féete mm-hmm. daañ ko accompagner ci fusion bi mm-hmm. parce que jël na équipe am boole ko ak Espoir Dakar foyer pour def jaraaf kon ñun Saint-Louis ak Espoir daañ dem def liguère moo tax dafa porter Linguère en estime parce que dañ ko gunge ci désiram contré wuñ ko ci li mu bëggoon hmm. waaw et c'est quelqu'un pour résumer li gaa ñi wax fii xam nga lan mooy chance Lamine Diack hmm. te jafe professeur amul âge amul âge yow mi muy waxal sa at lay am Lamine Diack n'avait pas d'âge xam nga nag garmi euh, ça c'est ce qu'on appelle lii la ñuy wax pédagogie pédagogique xam nga li témoin yëpp wax hmm. bi ñu ko waxee ba yeggal doyen Abdoulaye Diaw da koo segg. Mm. ni force Lamine Diack xam nga lu mu doon. Mm. amul âge ku mu jàkkaar loolu rek say at la am. la mm-hmm. jeunesse de 7 à 77 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu euh, mooy wane nii ki nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey. nit ku rëy la. moo indi waa ji jóge ci àll ba amul billet ñëw laaj xaalis mu defal ko chèque 500000 dégg defal léegi chèque 500000 koo mosul gis. dafa maasee ak moom bi mu koy def. loolu yombul. Mm. xam nga laman <laughs> waaw moo tax bari na Sénégalais yoo xam ne jëg nañu fii dagal seen bopp billet. dem seeti Lamine Diack. Mhm. wóolëree tax. ci ñooñu xam nga kan. Hmm. Abdallah Sall. doomu Serigne Abbas Sall. doomu mi ngi jooy fi mu ne gisuma ko waaye mi ngi jooy. fu mu la. c'est c'est que baas. fu mu dégg ñu waxoo la ah, euh, oh. ñu jàpp nag loolu mu ngi. bu nu def noonu Serigne Abbas Sall. bu nu def noonu Serigne Abbas. c'est tëtëtët Abdallah fu ñu waxee bi jàkk mu jooy. c'est tëtëtët bu demee France lu mu xat xat xat. ma fees dana ko dana ko fekk def na ko. Golver Diagne. def na ko. def na ko waaw. Ousmane Diop. Mhm. mi nekk plateau mhm. def na ko et tant d'autres mhm. loolu moo lay wane am na ñoo xam ne ñi le su fekkoon ne dëgg-dëgg dañuy joxe seen doole pour Lamine Diack mën a dellu si fiat fii ci réew mi am na gor yoo xam ne yii ku ci nekk di nga joxe li nga am waaw sama bàyyi day wax ni gore di bu la réeree da ngay dem kër fàtte ñoom fàtte wuñu dara xam nga Lamine Diack euh, dafa defal ni ko Abdoulaye di doyen Abdoulaye Dia waxee sànq dafa def loo xam ne xoolu ci woon dara lu dul yàlla wallahi ndax boo dee def ngir nit Mm. doo ko yeggale mm. waaye dangay def ngir yàlla booy dimbali dangay dimbili ngir yàlla Lamine Diack da doon jëf ngir yàlla mm. moo tax fa mu nekk kenn tugal nit ñi di jóg di ko fekki looloo tax nit ñi di ko ñaanal ba suñ jonni tey wax na sànq digganteem ak Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum Lamine Diack daal defe naa ni nit la ku baax baax nag dénominateur commun la ndax aka mën a jokk bokk aka mën a joxe asaka aka mën a aka mën a yëpp ci a baax lay mujj bukki ban ko waxee baax ak bon dana jël naa bon ñun ni ko lu tax mu ne daa nag ku baax la gis nga ko nii yaakaar naa ne lii doon na image yoo xam ne c'est image la yoo xam ne image yu mag la mm. Lamine Diack daal gàcce ah, ngalaama en tout cas ak sang bu euh, tedd bi waaw ak sang bu tedd bi wax dëgg yàlla lii sëñ Babacar Sy Mansour sëñ Babacar Sy Mansour ñoo nekk noonu mm. loolu yaakaar naa ne gar mi photo bii day wax mm-hmm. xam nga euh, Lamane mm. da tudd léegi jàbb bi pharmacie jafe ci réew mi waaw jàbb jàbb ñoom ñaar ñoo ko dénkër ñoo ko dénkërle woon <laughs> moo ko Aminata Mbengue moo ko Aminata Mbengue kii nekk ci Grand Dakar. sorewul ak xayma bi. kii nekk ci judo. maam Anta maam Anta maam Anta Mbengue bu baax. loolu moo lay wan ni te ñu te ñu te ñu nekk nag dëgg-dëgg ci jour de la femme. moo tax ñooñu il faut ñu indi leen. di la wax ne Lamine jaar daal lu ko warul ci réew mi yëpp def na ko. moo tax daal sénégal yi. ak sénégalais yi xam naa daal bës a jot il faut réew mi waxtaan ak moom ndax suñu kilifa gu tedd googu mën na ñëwaat fii ci ci réew uh-huh. ndax loolu mooy doon sagu réew mi uh-huh. loolu mooy doon sagu dër bu sagu bu ñuul uh-huh. dina am bu sooba yàlla insha allahu rabbi dina am bu sooba yàlla ndax Lamine Diack uh, li mu jëf ca ñaq du réer déedéet ca kenn ku nekk xam na ni uh, ngor rek moo fees ci moom dëgg la kenn ku nekk xam na ni lu baax rek la def kenn ku nekk xam na ni bi dimbali jotee dimbali nañu bare bari yaakaar naa ni Lamine Diack daal xaj na ci réew mi mm. Lamine Diack def na loo xam ni war naa dellu ci réew mi mm. Lamine Diack def na loo xam ni yaakaar naa ni kenn dootu ko fàtte ca doon na loo xam ni bind la boo xam ni aussi fii lañ koy bàyyi mm. ndax xale yi soxla nañ ku mel ni Lamine Diack xale tey jii tey jii euh, yi soxla nañ euh, ñoo xam ni yaakaar naa ne bu ñu waxee ñu dégg leen waaye ñoo xam ne bu ñu leen xoolee aussi mu doon comportement yoo xam ne ak modèle yoo xam ni loolu yaakaar naa ni gar mi dafay am solo torop torop torop torop moo tax kapi yi ma nga xam ne mooy doomam te nekk Paris. Mhm. na góor góorgóorluwaat bu baax a baax. Mhm. bàyyi dañ koy màggal. Mhm. nga dëgg. bàyyi dañ koy téye. bàyyi dañu koy sagal bàyyi dañu koy jaabu. nga dëgg am na cër yoo xam ne yile soo ko bëggee am da ngay tarbi sa wuy jur. te moom nag moom la yat wi dal. xam naa ne jàpp ba wala doom yi nga xam ne ñoo fi nekk su fekkoon ne ñoom ci ñoom la ne mhm. dëgg-dëgg loolu dana man a ne mais mhm. comme nag ci moom la nekk na xam ne daal am na bàyyu valeur boo xam ne bii Sénégal yépp soxla na ko kon na ko gën a téye wax nga dëgg na ko gën a euh, téye sunu xarit Alaaji Laman professeur Abdoulaye Racine Senghor hmm. nekkoon lycée Malick Sy bu Thiès hmm. moog Mamadou Koulibaly hmm. professeur de français ak euh, Christian Ngor nduur ay professeur lañ yoo xam ne ñun ñooñu dalal bi nu ñëwee lycée Malick si di fa jàng waaye Racine di kenn ci président Youssou nduur hmm. nekk tey président conseil d' administration euh, musée des civilisations noires. yaakaar hmm. naa ni euh, keroog wax naa la ko ci professeur Cheikh Anta invité yi ñu am yëpp moo ko liggéey ci racine dafa doon nitu aada nitu culture. Hmm. loolu yaakaar naa ni rëy na waaye nag Garmi danoo ñàkk fan yi ku mag. dama caa waroon na tàmbalee. ndax koo xam ni bi muy def DSS en histoire am. ñëw Guinée la dem dëkk bu ñuy wax. Krina. bi mu demee Krina dajeeg géwël. jëli Mamadou Kouyaté. li mu xam ci histoire bi yëpp mu bindal ko ko mu bind livre boo xam ne kenn dootu ko fàtte muy Sunjata u Lepope Mandeng kooku mooy Jibril Tamsir Ñaan ñu war koo defal nag levée du corps suba mm. ci mosquée omarienne à 10 heures mm. Jibril Tamsir Ñaan président de la république dañuy dañuy fay li ko indi avion bi koy indi mm. dañ koy fay Sénégal la koy fay kooku doon koo xam ne yaakaar naa ni tey euh, euh, étude africaine yi ñuy def Jibril Tamsir Ñaan doon na ci ko moo doon papay Katoucha Ñaan mooy uh-huh. nekk koo xam ne moom itam yaakaar naa ni Euh, àddina dootu ko fàtte. professeur moom moom laa yëg ni. moment bi muy gaañu Dakar. la seexam di gaañu ca Conakry. exactement seexam bu jigéen. seexam bu jigéen. moo tax ñu ne nañ ko indi ci wetu bi. parce que dañu bokk benn bis ak presque benn waxtu. bi jéblu tam seen ñaan di gaañu à mm. Dakar. Mm. seexam ma ngay bu jigéen. ma ngay gaañu ca loolu moo indi ñu ñu a delloo ji. loolu moo lay wan ne Abdoulaye. Ngarmi dafa nekk loo xam ne li lu rëy la. ñu ni ñu ni ñu ni Pape Mansour mi ngi ci ligne bi. waaw euh, allo Nabir. papa Nabir. waaw naam mbay. Nabir. Laman Laman mbay sa doom. ah <laughs> maa ngi toog ak uh, sa doom Mamadou Mbay Garmi. Hmm. waaye maa ngi toog it ak sa xarit Abdoulaye jaw sa jarbaat sa jarbaat. mbay. Laman na nga def. maa ngi lay ziar bu baax mbay. sant yàlla bu baax mbay. ana mi ngi lay nuyu ma nga Kébémer mm-hmm. di nuyu mbokk Kébémer yëpp. ñi ngi sant bu baax mbay tey ñi ngi wax ci Lamine Diack waaw waaw waaw maa ngi laa nuyu bu baax jërëjëf Mbaye di nuyu sama di nuyu sama doom jooju toog di du mbay Garmi jërëjëf Mbaye di nuyu ki xam ni moo toog ci yow xam ni baayam moo doon merci maam Cheikh Sidi Alhaji Malick Gour Jaw la ilaha maa ngi nuyu ku xam ni. Hmm. su dee wax espoir Sénégal ak l'histoire du Sénégal. ce hmm. plan sport amul kenn ku mel na moom. Hmm. maa ngi nuyu ku xam ni. ñu doon wax agré agrégé comme ni ñu ko daan wax Senghor en grammaire. waaw. di wax Lamine Gueye le premier avocat de l'Afrique occidentale française kontaanu indi Ablaye Diaw def ko agrégé des sports wala le premier défenseur de l'esport à travers le Sénégal jërëjëf Mbaye maa ngi ko bu baax jërëjëf Mbaye ki di waxtaane tey rek dama ko xam bu mu juddoo ba tey 17 hmm. juin 1933 ba âge bi mu am. Mhm. kenn mësu wax man waxal dara lu dul baax. Mm. kooku. Mm. wax fi mu jaar. sur l' à Dakar. Mm. wax ma fi mu jaar comme inspecteur principal. des impôts domaines. Mm-hmm. wax ma fi mu jaar comme conservateur. Mm-hmm. à la propriété foncière. de janvier à 1973 et à décembre 1978. waxuma ki fi mu jaar ci commissaire général. Mm. aux exports. waxuma mm. fi mu jaar comme secrétaire d'État auprès du premier ministre. chargé de la jeunesse et des exports. waxuma mm-hmm. fi mu jaar comme secrétaire d'État auprès du premier ministre. Mm-hmm. waaye as goro googu duy waxtaane tey. ab jullit googu nuy waxtaane tey ku fonk ay waajuram a googu nuy waxtaane tey ku xam ni yóbbu na effort fu xam ni waxuma ni kenn yóbbu ko fa waaye li ci def kenn defu ko mmh. masaa ko seeti maag sa mbokk ma sa papa aju Abdoulaye Naar ah, mmh. lu ngeen di wut si yéen ñaar ñii mmh. ñun ko du nu bëgg nga may nu furu dëkk mu ni léegi. woo ci xam ni moo amoon chargé. des domaines ni ko ñuy defal <laughs> leen. ku ci nekk trois cent mètres carrés aux Almadies. est-ce que est mu ni ma déedéet Haji Mansour maa joxe fo maa joxe li ngeen koy fondement. est ku ci ne dara la jox vingt tonnes ciment ngeen fondement seen kër goo ngeen bëgg tabax. est-ce que. est que kooku. Ah. yaakaar naa ne Sénégal yëpp xam na ko. est-ce ma bëggoon. Lamam. waaw papa. yàggar mi ak abbaay. Mhm. bala ngeen fiy jógee. waaw. Mhm. ngeen wax ak Sénégal yi ndax la ko fa téye. oui nuyu bu baax nag Youssou Ndour. Mhm. jërëjëf xam ne wax na ko. waaw waaw. bi daf ci am ca dëgg-dëgg moom itam fu ci toll. bu nu demul coupe du monde. te Ablaye Diaw am loolu ko naqari ma am loolu naqari ndax demul coupe du monde. moom la ñu jël bu nekk le chanteur du coupe du monde. wallaay mhm. Ba mi xam ne mooy ministre de la jeunesse et mhm. di sotu Tafsir Maba. Mhm. ci El Hadj Abdoul Aziz daan na wax nit ba la ngay koy jox cër seetal kuy ndeyam ak kuy baayam wala ku Sarr affaire u Lamine Diack ngoogu di wax fédération de de football mm-hmm. moom itam mu wut ay équipe yu bëree bëri nu football mm-hmm. pour Lamine Diack Lamine Diack mm-hmm. kenn mënu ko fàtte déedéet di gërëm nag sama jarbaat boobu dee nag moom trop ba muy dem di seeti Lamine Diack dafa ni doo fi des noo àndandoo dem naa it ba seeti Lamine Diack fa mu kër doomam. Mhm. à Paris. à mu ne ma lu yàlla dogal ci jàmm jullit ma lu ci dara. te man mhm. jullit laa. Mhm. gëm naa ne lii yàlla moo ko dogaloon ci man waaye defu ma dara. sama loxo ndeyjoor bi. ak sama loxo bi ba ci def dara lu si. ajuma suur. Sidi Boubacar Ibn Alhaji Mansour. mais xalif général mu fonkoon ko ndax mayoon na ko doomam. soxna Asi si. ndeysaan est que Lamine Diack mi xam ni moo jur ku ñuy wax Jàmba Diack. Oh. Moustapha Gueye ma ko jur. Mm-hmm. taalibe bàyyam la woon Alaaji Mansour looloo tax Lamine bëgg ko ngir bokk gi. bokk yi ngir gorom la woon Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoom may ko jabar. ndeysaan. yaa gër mi. walaay. waxtaan leen ak Sénégalais yëpp. jërëjëf Mbaye. ñëpp fab seen loxo duggoo ko. ci mbiru Lamine Diack pour fa mu nekk ndax cinq ans. gisoo mm-hmm. lu say njaboot. gisoo say xarit. Mm-hmm. gisoo say soppe. Mm-hmm. gisoo sportif yu mag yi. gisoo xale yi football. xamatoo leen say lu xew sa réew lu dul dul la koy wax. ci as gor su mel na Lamine Diack ca deful dara. Lamane waxtaanal ak Sénégal yi Garmi ak Abdoulaye Diaw. bu fekkee ba mu géri ci loolu. jërëjëf Mbaye. waaye bala ma lay bàyyi bàyyi nag di jaale sunu doom yi fi gaañu yëpp. waaw foofu laa bëggoon nga ñëw di leen ñaanal yal na leen yàlla xare àjjana. jërëjëf Mbaye. di wax réewu Sénégal. Hmm. jàmm la du xam. wallaay Mbaye. Hmm. Hmm. travers le monde entier. lu ñuy wax. wax nga dëgg. yéen rek yéen am ñaari alternance. Abdou Diouf génn Abdoulaye Wade dugg. Abdoulaye Wade génn marteliku mhm. c'est pas dara xewul ñaan mhm. ñaan jeunesse bi mhm. di ñaan mag yi di ñaan ndaw yi ñun ñëpp nan dal xam ne Sénégal rek la ñu am te am na lu taar boo xam ne Sénégal kenn mësu ko am ku dul Afrique ak Sénégal française kenn mësu am taar boobu ku dul ñun wallaay mbay di ñaanal Sénégal yëpp jërëjëf di ñaanal le président de la République jërëjëf mbay di ñaanal les partis d'opposition jërëjëf di ñaanal les syndicats. di ñaanal kilifa diir yi xam ni wax nañu jàmm ba suñu guddi gi yaakaar nañu yàlla dana yokk jàmm ji. Hmm. di ñaanal lii yàlla boobu fi amati. ndax lii ci dëgg-dëgg xamuñu ko. di ñaanal kilifa diine yëpp nag di leen gërëm. ak di leen sant. ak di fëttali kóllëre. Hmm. ak sama mbëggeel. ak sama taalibe ci Sidi Boubacar Ibn Alhaji Mansour laman baax papa di sant yi sama wóolare mhm. ca sang ba xam ni yónnee na ma barki de ba Ablaye Mbaye peex waaw te dellu sëy ba sunu doon xaadim rasul ak kilifa diine yëpp jërëjëf Mbaye di ñaanal ñu sunu yàlla ko yàlla may gudd fan yàlla may ko wér di ñaanal sénégalais yëpp ak sénégalais yëpp yàlla bi am jàmm yàlla gën a yokk jàmm mhm. am daan wax alxaaji Abdul Aziz ne bu amee sa ëmb mu nekk ci gaal xalifa bu tedd ba nee bu ñaan mukk ëmb bu mucc jaare rek gaal gi mucc bu gaal rek ëmb bu mucc te noonu rek la du am kon yàlla fi yàlla def jàmm ci dara juru foofu wax ñaanal yàlla tàppe xol yëpp ba yëpp nekk jërëjëf Mbaye maa ngi lay gërëm ak di la sant ndax fierté la ni Lamine sama doom la fierté la ni Garmi sama doom la fierté ni Ablaye Diaw moomu sama mbokk sa xarita ñoo bokk dëkk ca Ndar ay maamam ak samay maam ba sunu tàggoo jërëjëf Mbaye jërëjëf Mbaye jërëjëf xam nga kooku mooy sama papa Alaaji Mansour Mbaye ñuy ñaan yàlla mu may ko wér may ko gudd fan discours bi mu wax dégg ngeen ko li mu wax ci président Youssou nduur hmm. ci liggéey bi nga xam ni mi ngi koy def ci réew mi waaye li nga xam ne tam ñaanal na réew mi hmm. koo xam ni bu waxee ñépp dañ koy déglu loolu yaakaar naa ni li koy mayee hmm. lu rëy moo koy mayee ca loolu la sénégal yi gis ci El Hadj mbay Mbaye noonu la mel ci sama wayjur El Hadj Jaaja mbay ca Kébémer waaye noonu la mel ci Sénégal gépp li ko may nag bu demee tuubaa am ko fa bu demee Njaasaan am ko fa bu demee kër gi nga xam ni fa la bokk muy kër ëttu maam Seydi Hadji Malick mhm. am ko fa mhm. bu demee euh, Nimsaat am ko fa loolu li ko waral mooy nit la ku baax mhm. baax nag ni ma ko waxee woon sànq rek aka mën a jokk bokk aka mën a joxe asaka aka mën a yëpp ci yaa baax la nekk El Hadj Mansour dafa baax Maodo Mbaye Garmi euh, Laman sunu baay bi génn léegi dañu ko amel njukkal jërëjëf te njukkal bi jëf a tax maa ngi lay wax ne gor si génn léegi mhm. amul boru nawle gor si génn léegi mhm. amul boru mbokk mhm. gor si génn léegi amul boru réew mi dama waxoon ne mas na maître Abdoulaye Wade Mamadou Mansour su taalee otoom du la laaj essence du la laaj lu muy yóbbu ca kër ña mu jëm ñi nga xam ne ni tubaarkàlla jàppante nañu su agsee ca ñoom day jënd ay xaram woo leen ci biir këram dajale leen ne daal dëgg-dëgg lii boo gisee ma def ko bëgguma dara damaa bëgg rek ngeen juboo est-ce que Mamadou Mansour moomu nag mm-hmm. dañu koy ñaanal yàlla guddal fanam ci sàmm amiin bay di la wax ne nag la laman mm-hmm. wax na wax bu foor mm-hmm. mu tukkee nag ci koo xam ne kile mooy Cheikh Waly Seck Seck ma mbay Cheikh Waly mu baax moomulee est mu ngi naan Mamadou Mbay gar mi ni ëllëg ministre de la culture Abdoulaye Diop. Mhm. moo war a présider bés bii nu war a indi nag ki nga xam ne kii mooy Djibril Tamsir ñaan ah fii ci jumaay Omarienne. maa lu mel noonu. ñuy ñaan sénégalais yi. Mm. ak sénégalaises yi. tubaarkàlla tubaarkàlla ñu xam ne kii di ñëw. Mm. fii muy ñëw. Mm. dëgg-dëgg dafa ñëw foo xam ne fii fi la war a ñëw. Ah waaye nu war ko transporter nag. Mm-hmm. war ko yóbbu ca dëkk ba nga xam ne nii mooy Guinée. Guinée. mu fekk seexam boobu nga xam ne nii ñoom ñaar ci benn fan wala ñaari fan rek ci la benn fan benn fan la ñu bokk wuyu seen borom Alpha Condé ne maa koy recevoir mhm. moo tax nit ñi nañu dawal xel mhm. Alpha Condé moomu mi ngi nekkoon détenu ni waaw ca kan mhm. ci ki nga xam ne kii moo doon Sékou Touré est-ce que dox tey ba mu nekk ca bopp réew ma loolu moo lay wan ne réew ak lu ma a mel nguur ci loxo yàlla la nekk. ku yaakaar na yaa koy yaa ngi ci de. ci loxo yàlla la nekk. mooy seet fu ko neex. mu def ko ci fu ko neex. kon na nit ñi bàyyi xel ne Tamsir muy Tamsir Jibril ñaan moomu le ci ñi nga xam ne nii Léopold Senghor ñoo ko indi woon ci réew mi. dëkkal ko ndax Sékou Touré bëgg ko woon a gis. Mhm. loolu moo lay wan ne réew mii di réewu Sénégal réewu teraanga la. réewu jàmm la réewu yiw la na ñëpp bàyyi xel ci loolu ndax réew mi bu soo ca naree leneen ci yow lay këpp waaye réew mi moom dëgg dëgg ci réew mbaax rek ci mbaax mbaax koy teñ nit ku baax la Afrique ñàkk wallahi wallahi wallahi nit ku baax la Afrique ñàkk mm. démb Idrissa Ba chef de département d'histoire 23 mm. heures bi mu may woo daf ne ma madame Djibril Tamsir Niane daf ne ma laman fokk mu ñëw kooku mooy Djibril Tamsir ah c'est important kooku li mu wax mm. ci l'épopée mandingue kooku li mu wax ci les dirigeants africains face à leur peuple kooku li mu wax ci mairie kooku li mu wax ci Sikasso Afrique ñàkk na koo xam ne yaakaar naa ne ci wàllu culture ak aada. def na lu rëy rëy ca dekkal géwél yi nag ndax moo jëkk bind livre boo xam ni. géwél la jox mu wax muy jëli Mamadou Kouyaté. moo tax euh, Lamane ñu ndokk itam ambassadeur bu Guinée. waaw. moom tam taxaw na ci taxawaay bu rafet taxawaay bu rafet ndax réew boo ca nekkee ñu def la ambassadeur da koy mate mate na ko nag it moom itam ñu ngi koy ndokkel di ko lay jaw damay dellu si ci sama nijaay ji fii jóge léegi Age euh, Mansour Mbaye mm. ma xaleel ci keppaaram wax na ko tout wax na ko léegi dañu bokk benn njaboot hmm. maak moom hmm. ca ndar hmm. Amadou Babacar Sarr Chopard Chopard nekkoon ministre des sports en 1961. Mm. ki ko Mansour Mbaye tuddee am na kër tey. dëgg la mm. am na Sopar. dëgg la ci biir ki mu ko tuddee am na kër tey. gis nga bi ñuy dem au Jeux d'Abidjan en 1961. mooy photo bi mu la woon tout à l'heure ni la Lamine Diack. li ko tey dem mooy gaañu ci match bi contre Allemagne. booba Mansour Mbaye mooy directeur de cabinet ministre bi. mooy dibi mooy directeur de cabinet. Mm. ministre des sports Amadou Babacar Sarr di Sopar. di Sopar photo baa ngi waaw bii bii nii mi ngi nii Lamine Diack. équipe nationale du Sénégal 61 c'était contre des Allemands. Mm. gaañu ci genou. gisoo Moustapha Dieng moo nekk nii ci gauche am. Mm. Moustapha Dieng c'était le capitaine en 68. léegi Moustapha dafa nekk coéquipier Lamine Diack en 61. Lamine Diack dellu si nekk directeur technique am en 68 mm. def ko capitaine. <laughs> équipe nationale du Sénégal moom laa la wax ni la. Euh, gaañu ci match bi moo ko tey dem Haj Mansour. nekk directeur de cabinet Chopard. Abdoulaye. keroog bi ñuy dóor Cameroun 4-0 ca suba sa un but de Malick Sissouri. Abdoulaye. Euh, euh. waaw doomam jooju doomu Chopard joojule. waaw Amadou Babacar Sarr. waaw bi doomam tamit nekkee ci ci bopp yi fii. waaw dafa naa jël sama turandoo bàyyi boobu tam def ko chef de cabinet. est-ce que. Amadou Babacar ndaw <laughs> ko chef de cabinet. moom jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf doyen Abdoulaye Diaw fii fii lu baax yàgg na fi. jërëjëf doyen Abdoulaye Diaw jërëjëf. moom daal wax dëgg ci pour pour daane rek professeur. waaw keroog bi ñuy le premier Sénégal Cameroun de 1961. waaw ci mm. Abidjan. waaw ñu joué ko suba teel. keroog Alou moo moo yee Sénégal yëpp ci ci rajo bi. Mm-hmm. Alassane Ndiaye Alou. Alou moo commenté match bi ca ca ca Abidjan. Mm. Mm. match bi mel na kandar la. parce que Malick Sy Souris dafa dugal le quatrième but du Sénégal. Ama jaw dugal ñetti ñi match bu mel na kandar la. Mansour Mbaye ngi toog ci loge bi. fekk ne loolu. te nag soo ko bëggee wax lu ko neex ci football. waaw Mansour Mbaye. waaw ni ko réveil de Saint-Louis. réveil de bu Serigne Mbaye Fall. waaw eh. bu Ablaye Thiam. bu Thiam Demba. bu Alass Saliou Cissé Alou. équipe équipe bu Mansour Mbaye. jërëjëf jërëjëf jërëjëf doyen Abdoulaye jaw yaakaar naa ni Lamine Diack wax ci moom du jeex. du jeex waaye garmi euh, doyen Abdoulaye Diaw dafay koo xam ni ñun bi nekkee xale. Euh, dañu ko daan déglu ba nga xam ne mujjoon nañ nekk sax reporter Kébémer ñi ngi may seetaan bu match ma saan am oh. micro bi ñu ma daan jox kii ah, laa daan que xam nga hmm. euh, garmi ngi noonu daan naa dem ba nga xam ni équipe daan na football ak Sénégal ma këru équipe bi nga xam ne moom la Sénégal di footballal hmm. loolu bëggoon Abdoulaye Diaw maa ngi koy wax sànq Sénégal bi muy football ak Algérie fii nga xam ne suñu 1-1 bi Bakhloul Kourouchi Kouissi Guendouzi Mansouri jaf jaf Yahi Melian Madjer Ben Sawla yëpp ko daan jël loolu moom oh, xam nga ban jooy Lamine Diack oui tey laa hmm. may décorer à la présidence mu yëkk oui ñëw ànd nañu photo moom ci présidence boobu mu dee ma yaa tax ma ñëw yu laa gunge si ci décoration jërëjëf man laa ko ci rox bi jooy jërëjëf Diaw euh, jooyloo na ko effectivement léegi nag euh, ñi ngi sant bu baax Euh, Garmi. Mm. di sant bu baax Bokar Ali Pam ca université Assane Seck bu Ziguinchor. Mm. di sant bu baax Malick Thiandoum ak njaboot euh, Malick combaan mm. ak njabootam gépp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan émission bi ñoom itam. di santaat sama waa kër. waa kër Pa Alaaji Ndaama Fall bu Sénégal bu Broderie. waaye Garmi. maa ngi nuyu bu baax di sant Cheikh Oumar Anne. docteur Cheikh Oumarane sa xarit. ministre de l' enseignement de la recherche et de l' innovation ak cabinet bépp. Mm. soxna Ka Jaxate ak jëkkëram ñi ngi seetaan émission bi assistante ministre bi. Mm. ak Bouna Ba bi chef de cabinet mm. ñoom ñëpp bi ñuy ñëw dañ ne ma dañuy seetaan émission ba mu jeex. wëndeelu yaakaar naa ni. Euh, lii la indi woon tey ci Lamine Diack. tey Sanjaay la de tey du wëndeelu Sanjaay la. Sanjaay la naa ni Sanjaay mooy wë Sanjaay sama mooy wëndeelu bu a gaaw. sama papa Mamadou Mansour xam naa mooy woote xam naa am ñàkk lu mu bëgg a wax. ndeysaan waaye maa ngi lay wax ni euh, Lamane garmi maa ngi ndokkeel bu baax Cheikh Omar Bachir taal ndeysaan ah, waaw ku nga xam ne mooy Cheikhu Cheikhu Omar. ah ku aan mi nga xam ne nii tubaarkàll la. Ah. mooy sa xarit mooy sa soppe. ku baax Thierno Bachir. di wax ne tamit euh, Cheikh Abdou. Mhm. bu Baye Khady. bu sëñ Cheikh Khady. bu seen Cheikh Khady. waaw Baye xam naa ne am na mbégte ak contentement ci émission bu mag bile. Serigne Cheikh Abdou ku baax waa Darou Mousty yëpp. wallaay nangu ña nuy seetaan di nu taataan. ku baax di wax ne tamit euh, Alaaji la man ma ndokkeel nag bu baax. sargal nag bu baax mm. soppe ñépp mm. nga xam ne tamit kenn mënu tudd réew mi ci baax mm. te sa xel du tàbbi ci moom di maxtaar ba mu baax mi waaw ministre des bu baax moom itam su ñu yëkkatee benn benn benn col Amadou Mbaye Gar mi sañ cee jël engagement dafa am lu tax man xam gis naa grandeur xam naa ne ku bëgg réewam la xam naa ne ku bëgg sportif fi am jàmm la looloo tax incha allahu taala nu jël ci engagement boobule pour mu mën a dimbali suñu soppee boobu nga xam ne tubaarkàlla néegam a ngi sen ñaari message yooyu bëgg ma mu rëcc waaw benn bi mooy sam papa Mansour moo ñu ko ñaan waaw muy président lamin Diack Lamine Diack fee mu nekk tey hmm. noo ngi ñaan di tàllal suñu loxo très jàpp ci ba nga xam ni Lamine Diack dana mën a dellu siwaat ci réew mi bi ci def Amadou Gakou hmm. ñoo ngi ñaan hmm. ñu jàppale ko ba nga xam ni dana nekk ci condition yoo xam ne bu ëllëgee buy taw du nekk ci ndox wala mu nekk ci condition yoo xam ne dana métti toog ci tàllal loxo ministre des sports di tàllal loxo président de la fédération sénégalaise de football mm. di tàllal loxo président de la république mm. Amadou Gakou moom ñu jàppale ko bu baax xanaa rek di tëj rek nag di la ndokkeel nag laman bu baax a baax mm. di wax ne Abdoulaye Diaw kontaan nañu trop jërëjëf Mbaye jërëjëf jërëjëf da ngay nit ku yàlla baax bi noo def Espoir FM. moom la ñuy fal ko fal ko suñu directeur. mi ngi nii wallaay. mu di ñu tàpp tàppal. wallaay ndeysaan. di ñu raay. ak baax di ñu formé. ci koo xam ne kii Masana toog ca stade ba ñu naan Makhtar Makhtar Diallo. wallaay. et en ligne. wallaay Abdoulaye Diouf di ko recevoir. wala ñu ne Age Abdoulaye Naar. Mhm. ma nga ca stade ba Abdoulaye Diouf di ko recevoir. Mhm. wala ñu ne Djibril Fall. Mhm. ma nga ca stade ba Abdoulaye Diouf di ko recevoir. kooku nag boo gémmee ci biir. foo xam ne fii moom la ñu jël def ko directeur. mu formé nu ba mu nu mel ni nu mel war nañ ko Abdoulaye Diaw jërëjëf. garmi garmi moo ni woon Sénégal Maroc Baba Touré des Entrechats Baba Touré des Entrechats. <laughs> yow na xaw tuuti Baba Zaki. <laughs> nga nekk reporter. <laughs> mu ngi reporter waaye di la wax ne nag ki nga xam ne moom a sañ seet. professeur c'est le maire de Padoua. ah ndeysaan. Banda mu baax moomu. Banda ndeysaan Banda Diop. moo ma sañseel def ko turu parti socialiste yëpp eh. kon maa ko ndokkee di ko ñaanal jàmm ci ñaw ñaw bi nag dëgg-dëgg mooy Sam Couture est-ce que 645 01 73 ci Derklé jërëjëf na biir mbokk yi loolu moo doon tey wëndeelu hmm. euh, ci président Lamine Diack ñuy santaat sénégalais yëpp di santaat àddina bépp hmm. di ñaanalaat borom kër gi di fàttali wax ju nga xam ni wax na ko bërki dem hmm. marqué sénégalais yëpp marqué àddina bépp ndax sa matériel yàqu nga ne man lépp yàqu moom a gënal benn deret tuuru ci kaw suuf Youssou Ndour encore une fois yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla dimbali ndax mm-hmm. lim am lépp da ko def dama koy bokk ak réew mi mm-hmm. bu ko neexoon denc ko ci banque mbaa mu yóbbu ko feneen waaye da ko bokk ak Sénégal ñu ngi santaat yàlla bu baax di santaat Sénégal di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën mm-hmm. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa